dafa jot nag jigéen ñi tamit bokk bu baax a baax a baax suñuy nasaka noot ci suñuy communes yi président de la république nangu nañu bu baax ki nga xam ne moom nga teg ndax dafa yéem moom nag mu nekk koo xam ne nag moom moom mat a teg ci bopp ville bi ak ci bopp est bi ku ci nekk dem nañ ba sa bërëbu liggéeykaay toog waxtaan ak yow wax la projet bi nga xamante nii moom la ñu namm ci Tëngéej mu méngoo it ak li nga xamante nii moom mooy la volonté du président travers l'acte 3 de la décentralisation acte 3 boobu nag dafa am lu bëri loo xamante nii dafa des mise en œuvre ci suñu commune Le le président xam ba tax mu ministre d'État mu le candidat de la ville et le candidat de l'État ça veut dire que toutes les chances sont possibles un boulevard nous est ouvert Le ba ministre d'État gagné le ministre d'État wax gagné. ko nee bu ville gagné est bu boobaa nag ñu xam ne lépp dëgg la te loolu monsieur le ministre d'État ñu lay yóbbante ci le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ndax ma ne ko jigéen ñi nee nañu bu leen fàtte ci liste yi bu leen fàtte bu ko defee boo gañee yàlla def lii wax leen ma lan moo gën xanaa nag ñu am maire Rufisque Est bu jigéen